aux jurisprudence ndax yow am gis-gis boobu am nga ko ci. xam nga naxal xelu askan wi dafa grave et c'est dangereux pour ce pays euh, moom li muy wax ni man gëw ma sax ndax war na ko mën a gëm. attends bu ñu ne woon bépp ministre département bu ñu la dénk bu amee xew-xew bu mel nii dañ lay wàcce wala sa responsabilité directe mais kan moo fi des. kon bu benn lakk-lakk amee côté département Nioro ministre développement communautaire bi yor solidarité nationale dañ koy wàcce. bokkul bokkul. laaj ko Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr dafa nekk ministre de la santé. dañ koy direction bu yor mbir moomu nekk ci biir ministère am ci biir ministère am fooy agent am di xëyee loolu xew fa. Euh, ministre Mansour Faye lan moo ko lié ak chauffeuru ñaari bus yooyu. est-ce que moom moo leen jox mot d'ordre wala moo leen jox ordre de mission signé leen ne leen dem leen Kaffrine wala dem leen Tamba il faut pas que nit ñi def amalgame. kon état amul maintenant nag maintenant non non non non non non non non non état mënoon na ci am responsabilité wala moom Mansour Faye mënoon nañu réclamer départ am ci nan ci ci buntu Kaffrine am pont bu ñu fa waroon def defaruñu ko oto yi daanu fa këpp ñun lu tax defuñu ko lu tax marché bi lancé wuñ ko lu tax tel lu tax tel ñu engagé ci responsabilité am bu nit ñi def amalgame bu leen jaxasee ak lëndëmal xelu askan bi cette histoire là état du Sénégal fépp doomu Sénégal am jafe-jafe daf ci am responsabilité daf koy gàddu. Mhm. jàppale la taxaw la kooku c'est clair. Mhm. mais mënuñu wax ni waa li xew na fii dañuy wàcce tel ministre. dafa mel ni léeg-léeg nga génn fii ci plateau bi nga fa xastalu gars yi waa ministre de la communication dañ ko war a wàcce ça n'a naa à voir. wala kenn attaqué maintenant nag boo nekkee agent de l'État nga bokk ci secteur am. ci biir secteur am am benn difficulté boo xam ne moom mu mënoon na jël dogal ba loolu bañ am. Mhm. ñu ne waaw mais accident boobu Mansour Faye dafa waroon a tëdd ba 4 heures du matin xam ne à 5 heures du matin wala 6 heures du matin war na am accident war am fële dama ci war a intervenir laa war a def encore une fois plus il faut que ñu ànd ak retenu ci bu ñuy wax ak sénégalais yi nañ leen wax li xel mun a nangu populisme beeg jaxaseeg Mansour Faye na départ rek na nangam. Mansour Faye ki ko fa teg mooy ki ko wóolu mooy président Macky Sall moom la yàlla dénk décret. yokkal moom moo am kantan constitution ko muy ak évaluer ay agents de l'état yi nga xam ne moo leen teg ci yenn position ko doyatul daf ko fay jëlee mais ci benn accident boo xam ni wax dëgg yàlla Sénégal yëpp bokk naqar bi Sénégal yëpp ko mititlu responsabilité am wu ci directement ñu ne ko dañu ko war a wàccee loolu la war a bàyyi. leneen li am solo mooy mbirum état buñ ko xamul nañ moytu li ci wax fonctionnement état laa bëgg a wax suñu bokk opposants yi ak activistes yi leen sonal mooy ñàkk ko xam moo tax sànq ma ne la parti démocratique Sénégal am na façon waxin yoo xam ne bu ko waxee daf may bett ndax xam nañu état état fonctionné wul noonu état fonctionné wul mbir xew na rek ab ministre maintenant nag après accident bi nan la ministre de la santé ak naka la ministre des infrastructures def ak ministre bu yor mbirum développement communautaire naka la ñu intervenir sur les lieux ndax liggéey bi yéex na. ndax bar na léegi-léegi maa ngi fiy jot toute la documentation nécessaire prise en charge bi nu mu demee. ils ont mis plus de deux cent euh, radiographies ci ci ci jour yooyu noonu prise en charge bi yëpp poche de euh, sang yi. yëpp egsi na à temps maintenant côté yooyu amoon benn défaillance mun nañu écoute ministre la santé joué wul bu dee développement communautaire demul woon. yóbbu solidarité jàppale askan wi. laata président di egsi mun nañu ne Samba Ndiobène Ka deful. moom ministre des infrastructures bu demul woon xool mbir mi fu mu toll. engagé ay services am mais loolu moo tax ñu xam ne benn oto bi amuloon assurance. c' parce que rapidement gars yi déployé wu nañ dem nañu sur le terrain liggéey liggéey balaa président di egsi moo tax bu nit ñi di wax ni dañu yàqam ci def conseil interministériel génne ay mesures ñàkk xam lan mooy état la. Mhm. puissance su état ko ci vingt quatre heures. mu am information bi war yëpp pour mu génnee ay mesure am. information yooyu amu ko woon balaa accident bii di am ba mu mën a jël mesures yi en amont appliquer ko pour éviter saison genre d' accident. mais ça n'a rien ñu xaar ba ba jéye ji am. li nga li ngay wax noonu muy doog am information yi ñaari fan mu jël dogal yooyu noonu doxal ko. su ko jëlul woon nga ni yaa ne état bu état bu état bu. état moo indi xanaa accident bi. réew kii c'est kii laa rek réew réew. ci étape bu nekk. dafa am nu ñuy joyantee doxalinam. dëgg la lan moo indi booy suivre PSE PAP 2A boobu lan moo ko indi woon mais dañu dem ba benn instant. Covid 19 ñëw dal suñu kaw. ñu joyanti ñu ne suñu plan Sénégal émergent bi nii lañ ko war a defaatee léegi. est-ce que xamoon nañu deux ans avant Covid dina ñëw telle année dañu war a créé plan bi dañ ko war a defaraat tabaxaat ko xamuñ ko woon. Mhm. xamuñu woon ni jour bi heure bi mhm. accident bi dafay am. du ñu ay gisaanekat. maintenant nag suñu force ñun état mooy bu amee rapidement loolu ñuy wax résilience loolu mooy tax président Macky Sall intervenir loolu moo tax mu dagg wi kenam dem Kaffrine sur le champ dem fekki gars yi euh, maladie ci biir hôpital ba. Mm-hmm. wax ak ay ministre am jox le premier ministre des instructions mu woo gouvernement am woo acteurs yi wax ak ñoom génne ay mesures. d'accord état loolu merci beaucoup Thierno alors Abdou. Euh, jéegi wax na ko léegi euh, bi ngay wax waxu Goro Mansour Faye am na lu mu la fàttali ci Karim mais loolu ay détails la wax dëgg yàlla. mais c'est important. mais c'est non c'est vrai.